Pape aussi wax na lu am solo parce que nee na dégg dégg na nit ñi naan nawetaan rime avec violence mu ne gëmul concept mu ne ko violence fu mu dem dafa dafa dafa juux waaye violence dëkkul fenn amul kenn ku bugg violence donc violence amul fenn fu nga xam ne fa la dëkk fu mu dem rek dafa jox donc violence bokk na si li nga xam ne société daf ko buggul ko te Pape dafa am lu mu souligné dañ defar lu nga xam ne kenn amu ko suñu doomi bàyyi ko fi dem di football si àll ba métti na. parce que il y a trois ans dañ daan dem Pikine man jóge naa Pikine une heure du matin bi stade pare donc ñëpp dañ alhamdulilah waaye tey boo demee marché en Pêcheur gis la fa xew ñu ne si lametaan la soxee ko boo découragé wul bon dëkk bi jëm si kanam taxul a jóg donc il y un problème comme Pape l'a souligné il faut ñu waxtaanee ko parce que violence bi dafa commencé ëpp te si ñu nga xam ne ñëpp ñoo bokk jeunes yi amul benn jeune gan. jeunes yëpp jeune dëkk bi la kuñ fi gaañ si dëkk bi ngay fanaan ki gaañ si dëkk bi ngay fanaan ñu ne lan la nawetaan donc dàpp naa ne war nañoo xoolaat mbir yi la les nawetaan ne riment pas avec avec la violence kooku du concept bu nga xam ne bu dëggu la du concept bu nga xam ne nit war na koy gëm du concept bu nga xam ne nit war na koy pérenniser di ko di ko cultiver parce que loolu baaxul te jëmalul dëkk bi kanam dëkk bi lu ko jëmalee kanam mooy le conseil municipal bi lu ñu def mooy ñu gis lu xam ne kenn amu ko ñu defal ñu ko Dakar amul terrain ñu ne ñu xool leneen loo xam ne dëkk bi soxla nañ ko ñu def ko loolu moo jëmale dëkk bi kanam mais ay nit ñuy xuloo ay nit ñuy xeex ay nit ñuy sànnante xeer ak quelque bord qu'il soit bu fekkee loolu am na rek bokkatu ci te loolu taxul dëkk bi jox sur ce dañu jël kàddu gi jox ko Momar Faye xam naa il est le mieux placé pour wax si parce que nee naa moom président de de zone la te xam naa coono yu mu daj et eh, coono yu mu daj ba léegi pour dem football ñëw donc amul lu ko gënal conseil municipal bi mu defar fa toog nekk si jàmm waaye jàkkaar naa ne am na message boo xam ne war na ko mën a lancer vis à euh, ñu bëgg nag vraiment les décideurs nga xam ne toog nañ ñun ñëpp ñu am occasion pour wax ñu ne leen stade bi dañ ci war a mën a continuer di football. continuer ci di football nag mooy dañu war a associer la euh, la zone associer les présidents d'ASC associer les acteurs communautaires associer kilifa yu nekk ci quartier bi ñu toog waxtaan et les riverains. riverains yi nga xam ne ñoom ñooy yàqule bu xeex amee ñu toog waxtaan nga xam ne xeex du am kenn du yàqule te jeunesse bi dinañ football gisi seen bopp vraiment kontaan ñuy bañ a dem ay Amadou Bari wala ñuy bañ a dem ay Iba Mar wala feneen ak feneen ñu yem suñu dëkk football parce que en bel exemple exemple la ci yeneen communes yi parce que loolu monsieur le maire ci politique am ci volonté am vraiment réussir na prouesse boobu noonu yeneen communes yëpp ñu ngi ñuy ñee ndax suñu stade bi su tey ñëpp ku ci ne équipe bu bu ñëwee bëgg nga ci recevoir loolu man mun naa ko seede parce que am na yeneen zone yoo xam ne sax dañu fi bëgg di football donc gis nañ ne qualité stade bi am fii ci en bel donc kon ñu ngi leen di ñaan encore une fois rek ñu gën a mën a toog waxtaan ensemble ndax ñu trouver solution à ce phénomène di gën a ñaax aussi les supporters des ASC que ne président ASC yi ñu ngi leen di ñaan aussi ñu bañ a def violence parce Euh, jamono yi ñuy gis si quartier yi neexul président ay ASC yi neexul kenn koo xam ne si mouvement nawetaan nga nekk parce que booy xeex yow yaa ngi xeex mais yaa ngi yàqal tout une tout un quartier yaa ngi yàqal tout mouvement parce que nawetaan foo la ak kaf ak ree donc kon bu ci foo lu ci loolu deñee rek violence amu fa waruñu ko mun a mun a mun a def dañ ko war a arrêter donc jeunesse mënul toog sans nawetaan parce que da leen di divertir day tax vraiment ñu épanouir donc kon bu ñu yàqal loolu ndax ay violence ndax ay xeex ak xuloo donc kon vraiment ñu ngi rafetlu di leen di ñaan yàlla di ñaanal monsieur le maire vraiment euh, kontaan nañ ci acte bi kontaan nañ vraiment ci ci ci ci lépp maa ngi leen di gërëm di leen sant merci. jërëjëf merci Tamsir xam naa kàddu yi may njëkk a yëkkati rek kàddu nuyoo la. Euh, di nuyu monsieur le maire Matar bi nga xam ni tey moo fi représenté le maire Babacar Mbengue ànd ak euh, naataangoom bi nga xam ne mooy adjoint au maire sarge de la supervision de la commission muy Momar fay di remercier tamit administration municipale bi nga xam ni tey Issa Gueye le secrétaire municipal mu ngi toog ak ki nga xam ni mooy chef de division bi nga xam ni moo yor jeunesse sport ak éducation fii parce que tey bu ñu fi toogee cérémonie subvention la ñu wax ñun en tant que élu li ñu am yor ko suñu commission mooy toog xalaat lan la ñu war a mën a def ci année budgétaire bi ci wàllu jeunesse ci wàllu sport ci wàllu vie associative mais je pense que bu ñu ci paree beneen wàll bi nga xamante ni ñoom euh, Issa Gueye ànd ak chef de la division ñooy ànd diligenté administrativement ba nga xamante ni xaalis bi day gaaw a génn ba ñu mën a jot ci subvention yi di jéggalu nag parce que chaque année daan nañ ko teel a jot mais bii ak ni mu demee peut-être lenteur yi am côté côté bi mu amee ñun xam nañ ko mu xaw a yéex loolu dañ ciy jéglu je pense que tey nag bu ñu fi toogee di joxe subvention di ko jox ASC yi di di nuyu ñi nga xamante ni ñooy président de zone yi di nuyu ñi nga xam ni tey ñooy président d'ASC yi ak ñi leen fi représenté yëpp tey dañu wax cérémonie de subvention ñu koy def chaque at wante nag occasion la ba nga xam ni bu ñu ñëwee ñun en tant que élu di toog ci conseil municipal bi foofu dinaa jaajëfal conseil municipal bu Hann bel bi nga xam ni chaque année seen volonté mooy joxe subvention surtout ci wàllu nawetaan débat yi nag day jóg ba ci kaw lu ne di nga ko dégg parce que nag dañuy nekk 70 élus kenn ku ci nekk ak fi nga gis sa bopp ak li nga li nga xalaat ñii éducation moo leen ñor ñii santé moo leen ñor mais ñun yàlla dañu nattoo ñu nekk ay sportif nekk ay acteurs communautaires ya nga xamante ni ci loolu la ñuy mën a défendre da ngay dégg lu ne nawetaan xeex la toj bopp la sànni la yàq la mais toujours ñun dañuy camper si suñu position ànd ak volonté conseil municipal beeg maire bi lépp pour sunu jeunesse mën a parce que nawetaan buñ koy wax adduna bi fii ci Sénégal ñëpp koy def day dem sax ba génn léegi ci Sénégal dégg ngeen fi nawetaan ya nga xam ni mu ngay am ca Italie kon ça veut dire que nekkatul la nga xamante ni fii rek la si Sénégal foofu nag dama ci taxaw tuuti que nag. suñu jàkkaarloo ñi nga xam ne ñooy acteurs yi ñun ñu nekk fii di xeex di daj lu ne dañuy traité di n'importe quoi nawetaan baaxul jarul ngeen leen di défendre mais yéen la ñu am parce que ñun ñoo ko bokk suñuy jarbaata fa ne suñuy dooma fa nekk suñuy njaboot ba keroog ñu fiy jóge du ñu ti di defendre le mouvement nawetaan mais nag du tee bu ñu jàkkaarloo acteurs yëpp a ngi fi président de zone yi ñu ngi fi président d'ASC yi ñu ngi fi ñu jéem a jël violence bi jéem ko xool nu mu mën a wàññeekoo ba jeex waxuñu ñu xëy rek dindi ko violence nawetaan nag dangay ngay dégg tey acteurs yi nga xamante ni dañuy toog naan nawetaan ak violence ñoo ànd man d'accorduma ci terme boobu ñu koy wax parce que ñun dañu jouer dañu diriger dañu encadrer nawetaan da daan am gaañi xeex terrain dóorante mais daaw ñu yàq alalu jàmbur comme niñ koy gisee tey parce que bu dee stade ba lu fa am mën nañ ko muñ sunu xaalis la an belleer ko moom mais boo yàqalee nit ka nga xamante ni xamul nawetaan xamul leneen dem ak otoom kooku bu porté plainte tamit mbir mi day gën jafe foofu tamit di profité waale comme tey ñu ngi am Mak TV mbokk internet yi fi nekk yëpp di déglu ñu xamal ni leen ni nawetaanu Hann Bel-Air stade bi kenn tëju ko dañ ci def xaalis bu bari pour notre jeunesse kenn tëju ko kenn terewu ko mais nag sécurité mbir la ba nga xam ni dépendrul ci ñun moo ñëwoon dootul joxe sécurité ci région de Dakar boo jógee fii ba Déni Biram Ndaw colonel bi dafa ni woon nawetaan dafa bëri violence ñun nag malheur bi ñu tombe mooy ñu am an bel stade ba nga xamante ni gendarmerie moo ko géré ñu daan génn di football yi nekkul ni mënuñu am stade bi mais dañu mënul am gendarmerie ñëw fi te gendarmerie ñëpp xam ni ñoom ak police ku ci nekk dafa am zone ba nga xam ni da nga ko gérer je pense que bu ñuy génn dem Ibamar dem Parcelles Assainies dem géejawaay da doon fekk ni police moo fa géré mais suñu stade ñu ngi ko am bëgguñu lu dul GIE fi mais nag ñu waxtaanee ko je pense que damay wax ci président Momar mi ngi toog je pense que keroog le colonel Abdou Mbeng bi nga xam ne mooy commandant légion ouest woo nañu bëgg ñu foo kom ñëpp. mais nag ñu bàyyi yàq bi je pense que foofu dañuy lancer appel aux supporters aux président acteur communautaires yëpp ñu wax ak njaboot gi parce que suñu njaboot la kenn mënu leen bàyyi nañ leen encadré wax ak ñoom xam leen ni dëkk yëpp ngay foo seen dëkk ñëpp ñun waruñu toog di jéggaani parce que dañu toog fii di dégg coup de bu ne buy jóge fii ci Sénégal ñëpp envier ñu ci li ñu am je pense que loolu dafa nekk patrimoine ba nga xam ni sagu yaraax la sagu jeunesse su Hann la dañ ko war a sàmm man fi mu neex nawetaan nag comme niñ ko waxee ñu dem bàyyi ko ñoom mënuñu dem bàyyi ñu mais vraiment daal di wax ni niñ ko waxee cérémonie bi nii la mënoon demee yéex na génn équipe yi ñëpp xam ni sonn nañu dépense yi bari na moo tax tey je pense que le maire ak maire Matar seen bureau municipal ne ak lu ci manti am comme disponibilité am na nañu ko joxe mais daal xam naa du ma monopoliser la la parole dinañ am yeneen jotaay ya nga xamante ni il faut que ñu woote ko bu ñu jéggee ci nawetaan yi ñu def assise ya nga xamante ni niñ ko waxee ci ci sport la ci football la mais nañu jël ci nawetaan waxtaan parce que li am jéggi na dayoo trop trop trop ASC ya nga xamante ni dañu dem ba xaaj zone yi pour bañ histoire am mais da ngay gis ASC ya nga xam ni bokkuñu sax fu ñu joué mais bu ñu paree ñoom ñoo ciy des ka nga joué sax mu gañe la da ngeen ni am jàmm mais kaneen moo koy jël démb nag ñu ngi wu gis nañ li am boo demee tey marché aan nga gis nañu ko def léegi dans six mois sept nawet ñëw ku xam réparation toiture boobu xam ne ay millions la tey nawet bi day ñëw rek ku ne attaqué mairie bi dina taw dina taa dina di ku nekk di wax fekk ñaka yàq ñu ngi dem toog dañuy passé nawetaan nekk ci leneen ñu xam ne yaraax ñoo ko bokk mënuñu dem bàyyi leen yéen la ñu am ñun tamit yéen ñu fi teg yéen la ñu am je pense que ñu ànd mais dans la mais la mairie ak acteur nawetaan yëpp ñu jéem a xeex la violence ba yaraax man dellu ci nawetaan yi fi amoon apaiser ya nga xamante ni violence yi dina wàññeeku ñu ànd yaraax jëm ca kanam loolu moo nekkoon kàddu yi di leen remercier bu baax a baax. ñëpp di jiital nuyoo bi monsieur le maire Makhtar Diaw di la commission des sports Pape Baro di ci aussi. SG du moins secrétaire général directeur de cabinet ak euh, chef de division Maguette Faye waaw xëj na nag man dama xamul ci ban casquette laay waxee ma xamul ndax ci maire laay waxee xamuma <laughs> ndax ci président <laughs> président de zone laay waxee waaw mais li ci li ci ëpp solo rek mooy di wax ne dañuy rafetlu bu baax euh, subvention yi jamono bi mu ñëw di encourager bu baax euh, la municipalité le maire nekk ci kanam ak ses adjoints ak ñi fi nekk ñëpp ci di travail pour la commune la commune ñu leen di remercier baax ci activités yi ak ci surtout ci subventions yi mais di wax ni rek président yi di leen wax nii comme ñaari casquettes yi ñu ma jox yi ma nekk yor dafa mën na nekk un avantage aussi bien ci niveau mouvement sportif mais aussi ci biir mairie bi parce que tout simplement comme ni ma ko waxee léegi coono yi ñun ñoo koy daj nekkandoog les acteurs sur le terrain xam les informations et les bonnes informations la ñu xam loolu mooy taxit bu ñu ñëwee ci suñu soit commission yi wala wala ci conseil municipal bi ñu mën wala bureau même bureau municipal mën a défendre avec rigueur intérêt wu acteurs yi nga xamante ñooy acteurs sportifs yi donc c'est un avantage c'est vrai que c'est c'est c'est des difficile parce que da nekk dans une situation mal à parce que da war a défendre intérêt bi des fois défendre intérêt bi des les intérêts ne pas être être donc loolu mooy souci bi ñu am mais pour wax leen rek ne ñu ngi tenir bu baax comme ni ko conseil municipal bi ñu fi fekk ah ñu doon jëlee en les préoccupations des sports des, des acteurs sportifs noonu la ñu fi fekkee commission bi fi nekkoon ñuy travailler ci loolu mais ici 109 la ñu apporté comme am nañu chance su nekk dans dans dans dans le mouvement lañu la ñu apporté parce que dañuy joxe les bonnes informations aussi di encourager di remercier bu baax le conseil municipal gis nga ñu keroog bu ñuy wax ci délibération ci gestion stade bi ak faveur yi ñu defal le mouvement navétane ça n'a pas été facile on le dit devant c'était ardu parce que ñenn ñi dañu am seen ay position am seen ay gis-gis surtout li ñu wax nawetaan violence rek jarul ñu leen defal yenn faveur mais ñun itam nekk nañ ci mouvement nawetaan c'est vrai violence bi mooy yàq image wu nawetaan li muy liggéey yëpp ci mbaax mbaax ak li muy jëriñ ci communauté bi ñun bu ñu organiser match fii ñaata nit ñoo ci bénéficier ñu nga xam ne dañu leen jël en charge waxuma la dara sax activité bu nga xamante ne dina créer dafay dafay dafay créer ay revenus même si c'est c'est c'est peut-être des des nit ñi ñu nga fay ñëw di liggéey di am lu ñu yóbbu seen i ay kër donc loolu dafa nekk ay activités yu nga xamante ne bu ñu weesaloo formation yi ñu defal euh, ñi nga xamante ne ñoo nekk ci acteur acteur mouvement yi bari na ci ñu nga xamante ne ni tey leen leen di buub mooy benn entrepreneur dañu toog di wax mu ne moom liggéey ku jaar ci mouvement associatif moo ko gënal nga xamante ne CV rek la may indil parce que dafa am expérience bu nga xamante ne ci terrain bi la koy jëlee donc yooyu muy ay njëriñ yu nga xamante ne nii le mouvement navétane daf ko amal les les activités sportives dañu ko amal la société peut-être violence nag mooy mooy mooy yàq ñu ay ay mbir mais ñuy remercier bu baax rek le maire parce que tamit situation yi ñu toll depuis daaw ak ren def nañu am nañu ay difficultés pour organiser fi mu ay match mais it moom il a été à notre chevet lu duñ ko waxee dañ koy waxte yàlla rek tax il a été à notre chevet gis nga set saison am nañu ay blocage parce que service d'ordre du dañoo àcc stade bi mais problème service d'ordre la ñu am te gendarmerie bu ñu def naa Pape dafa wax ne fii ba Sébikotane joxuñu leen benn gendarme ñu dem ci mouvement navétane parce que tout simplement problème yi am ci ànd la jógee ndax violence violence violence bu gars yi defee compréhension yi te ba indiwaat leen dañuy xeexaat loolu nag gars yi c'est un défi ñun ñëpp ñu ngi fi président yi ñun ñun ñëpp ñu ngi fi c'est un défi nañu ko waxtaanee xool nañ lañu résolver ce problème c'est vrai c'est difficile mais c'est pas impossible mën nañ ko régler kenn ku si bu ci mettre un peu de volonté rek dem ci quartier yi def sensibilisation def li ñu war a def ñun ñëpp bu laajee sax des fois ñu def ay dénonciation ci ñi nga xamante ne ñooy fauteurs de trouble yi mais qu'on le fasse qu'on règle le problème une bonne fois pour donc loolu le maire il a été à notre chevet colonel Meng dafa bañ même ay autorités ñaan nañ ko dafa bañ ba tëdd ci ñag bi te am na ay argument ndaxte dafa yor scène de violence yu ñu fi def yëpp daf ko yor mais dem na en un moment donné le maire a négocié avec lui ba mu permettre ñu au moins ñu continuer mais nag suñuy problème dafa dem ba au commandant de la gendarmerie donc muy wax ne foofu moom c'est le sa moom ba tax na loolu loolu nag problème yooyu bu ñu ko amee it di ko régler bu nit ñi supporters yi demee ñu fexe ba ñu joué ji ba pare ñu ñëwaat di xeexaat ci quartier bi dafay compliqué keroog le colonel il m'a envoyé les les les les ne ma yi hors de ànd lañu la ñu footballé ñëw ba biir ànd di

mais sama waa lan moo lan moo des léegi rek dañu dañu nangu mën mën foo rek dañu nangu mën foo loolu kese moo ci des donc man si si j'ai message à lancer daal surtout aux responsables yi fi nekk mooy gars yi nañu gën a taxawaat suñu mouvement nañu gën a feex fexe éradiquer la violence donc loolu le reste nag ñun à notre niveau lu ñu ci am muy ay requêtes wala ay difficultés ñun na génn ñoo koy dund te bu ñu ci bu ñu ci tolloo ñi ko war a jot dinañ ko jot fa ñu ko war a jotee te xam nañu tamit ne volonté wu ñi fi nekk pour prendre les préoccupations prendre en charge les préoccupations du mouvement associative et du mouvement sportif en général donc ñun xëy na loolu la ñuy jàllale comme un message di ñaan ñëpp ñu jëw ñu gën a consolider wu ci def fair play def esprit de fair play implanté ko suñu ay quartier te mën na nekk gars yi c'est pas impossible mën na nekk donc loolu la ñuy encouragé ñëpp di remercier bu baax le maire parce que taxaw na ci sincèrement taxaw na ci lu mu mën nit ñi nag duñu xam des nu mu demee moo tax dañuy wax rek di inter di interpréter mais duñu xam réellement nu mu mënee mais gëm naa li ci des rek mooy taxaw suñu quartier yi def naa loolu mooy li ngay li ñuy jàll ko message di jégal ñëpp asalaamaaleykum di nuyu le monde sportif au nom de l'honorable député maire Babacar Mbengue avant-hier pourtant le Sénégal a été battu hier la grande Argentine avec Messi est tombée aujourd'hui tout à l'heure l'Allemagne vient d'être mise à genoux et pourtant dara jogul amul xeex amul dara pourquoi moi je vous parle franchement j'ai le cœur meurtri je ne suis pas content aujourd'hui parce que fii laa dëkk ci biir dëkk bi on m'a tout à l'heure les images du marché du marché de Hann ñan ñoo nekk marché à Hann des gens comme vous comme moi ñu jël seen alal def ci biir marché bi yéen on vous a construit un stade mais lii c'est un équipement structurant l'autre c'est un équipement sportif tout ça c'est à l'actif de la commune pour ñan pour ses administrés ñu fubal ba pare match bu jeex ba pare kenn xeexul Amadou Bari kenn xeexewul fenn ngeen ñëw ba ci biir koñ bi ñu ñëw véritablement def ay actes yu nga xam ne si c'est c'est pas des actes qui ennoblissent vraiment le mouvement nawetaan sportif dañ ko mënoon xam dafay am esprit de déplacement dafay am esprit fair play ku mel na grand Jean bale si ginnaaw lu mel nii rek moo ko mën a dugal ci salle bi c'est très symbolique c'est très fort pour nous parce que y de cela mooy d'un an six mois ou sept mois derrière on a organisé la formation de la licence D ici dans cette salle kan lañ ko tuddee feu abu sar lan la ñuy def ñu préparer moniteur de la formation des moniteurs des collectivités éducatives pour ñan la pour yéen la pour la jeunesse mais tey ñu war a préparer ñëpp ngeen war a ñëw ñu war a ñëw toog waxtaan situation yi bu présenté woo dañuy am problème mais yéen pourtant vous les dirigeants sportifs def ngeen li ngeen man yéen a ngi taxaw yéen a ngi def lu nekk man dama leen yërëm mais aussi comme ni ñu ko waxee tout à ñun ñëpp mënuñu am bijou bu mel nii ba pare di dem di jéggaani feneen mais loo wax ñun lan lan gendarmerie ni à cause de la violence du moo ko def foo dem ci àdduna bi nit ñi dañuy def sport de temps en temps am na yu mënul ñàkk mais aussi li fi am li léegi trop c'est trop mois je me suis lan la moo war a situation bi lan moo tax ñu arrivé a ce à ce stade et pourtant en 2008 bu ñu bëggee préparer ne dañuy def ñaari zone pour juguler la euh, kii bi moi je fase partie des rares personnes qui disaient que non sport bu amul derbi neexul Gia Jaraaf ba léegi xam anak Gia kenn déggatu ko mais ba léegi derbi dafay am bërki démb lan la ñuy wax le derbi de la banlieue entre Pikine ak Guédiawaye mais mbaxal Wally daan derbi la mas a nekk mbaxal jaale Wally derbi la mas a nekk tey amitié bu ñu doon wax entre ñoom tey lu ñu bëgg a transformer en animosité qui ne sa justifie pas parce que véritablement je dis mouvement nawetaan comme ni ko président Momar waxee mouvement nawetaan c'est une véritable entreprise kii est source de revenus parce que ñaati nit ñoo ci dund après période boobu kii jaay crème mi ngi jaay kii jaay leneen mi ngi jaay kii dugg si saat bi mi ngi jaay keneen dem ak dem mais man ay xale xam naa ñu fubal ba pare ñu xeex ak seen loxo. mais kenn bañ fekk bat oto jaamur nga yàq ko wala nga fekk leneen nga yàq wala nga fekk beneen bâtiment nga yàq ko loolu seen là où se situe le problème bu fekkoon dañuy ñëw ci quartier bi ils en viennent aux mains là on pourra comprendre loolu mosu fee jog te sport aussi itam loolu de temps en temps dafay am mais nag effectivement li président Ibrahima Baro wax da wax na dëgg il faut ñu éviter loolu que le sport ou bien nawetaan rime avec la violence déedéet tey la plus grande industrie du c'est le c'est le sport et la sport boobu mooy lan c'est le football tey lan moo indi Qatar bi nga xam ne si même quel que soit le score bu ñu koy dóor suba am na déjà carnet d'adresse bi nga xam ne si tous les partenaires tous les investisseurs iront au Qatar au Qatar pourquoi parce que moom loolu la am c'est pas le résultat sur le terrain qui l'intéresse c'est pas le même objectif que le Brésil ni encore moins la France ou l'Allemagne qui viennent chercher cela mais kii dafa am leneen lu mu indi kon football dama koy wax bërki démb dañu toog depuis dix ans USB lan moo doon problème am am na ñenn nit ñi rek ñoo si nekkoon ñu dox wax ba egsi fu ñu egsi conseil municipal bi ne bu ñu taxawee USB dellu fu mu dellu waan ñu mën a jël ay moyens def si moyens yu ñu def ça n'appartient pas au à Babacar Mbengue ni à Issa ni encore mooy à Matar Diaw mais ça appartient aux citoyens que nous sommes mooy lan mooy ñun ñu fi nekk ñëpp kon dama bëgg yu mel noonu su amee su amee ñu mën a taxaw ñu mën a taxaw ñu mën a taxaw ba lépp li nga xam si duñ ko war a wax wala duñ ko war a def ngeen bàyyi si xel vraiment munuñu comme ni ko Tamsir waxee sànq bi ngeen daan dem Pikine di football yi wala ngeen dem fenn ay une heure du matin ñu romb suñu doom yi suñu jarbaat yi ñuy daw ñu ni quinze ça c'est un problème de sécurité on est venu ici au conseil municipal je parle sous le contrôle du secrétaire général et les autres collègues conseillers municipaux on a tenu des ba des, des, des, des débats très houleux y a des gens qui disaient que non non non mouvement nawetaan jaru ko on a dit non ñun nawetaan dafa bokk suñu ADN parce que kan moo ko bëgg suñuy doom ñoo ko bëgg nu Mane di président Assane di président sama jarbaat la Jibi Diop sama jarbaat di président ngeen di ay xale yu ndaw bu ñu demee si yeneen quartier yi suñuy seen moroomu papa yi ñoo fay nekk ay ay responsable pourquoi parce que fii ko wax mun la xale yi dañuy manqué mag respect te lan moo am solo mooy sport dafa war a sport dafa war a nekk facteur d'unité ñu fubal ba pare quartier yi fubal ba pare ñi nga xam ne si yéen a ngi toog yéen ay bokk lépp yéen ay defandoo lépp ngeen fubal ba pare fubal bi war a jar ngeen di xeex. football bi maanaam bu ñu paree démb tout le monde a appelé dem leen woy wooy gendarmerie mu ñëw ta bi ñen ñoo ñëw ci dëkk bi LG yi mbaaw bi presque fii la ñu fanaan jusqu'à trois heures du matin les c'est pas normal c'est pas normal ça ne pas ça ne nous parce que ñun ñëpp nous sommes tous issus du mouvement sportif nu sommes des acteurs communautaires mais nañu delluwaat ba bërki démb le maire est parti voir voir voir voir kii du mu tuddee euh, euh, colonel Mbengue pour que lan ñu mën a dellu siwaat waxtaan mais ce qui s'est passé hier ça pose problème on avait di même aujourd'hui pourquoi lali passé fi tey ñun ñu mën a toog di leen jox subvention tey il fallait marquer le coup ba situation bi passé ba ñeneen ñi xam ni parce que damay massaw commerçant yu nekk nekkee fii di masawu ñëpp ñi nga xam si turu maire ci turu conseil municipal ñëpp ñi nga xam si dañu yàqule démb parce que am na ñoo xam ñëpp bu fubal jotee boo leen demee marché romb fa yi ñu jël seen cent franc wala seen mille franc jox leen nga fubal ba pare dellu si bëgg yàqaluñu moom nga fubal ba pare am na ay ñu nga xam si dañu indi seen ay matériel yëpp teg loolu yëpp mu yàqu démb gars yi am na lu nga xam si du dëgg yoon tey je tiens à remercier vraiment Mak TV tey fu ñu mënti toll léegi lu nawee lu xew stade ñu ngi koy xam mais gars yi on est à ans en avance macha allah qu'est-ce qu'il faut faire président SG Pape Baro am na lu nga xam ne màggat waxoon nañ ko il faut qu'on y revienne il faut les assises du mouvement du des des sports il le faut en 2023 parce qu'on avait des problèmes dans le secteur de l'éducation on est parvenu à les régler bëgg nañ leen responsabiliser davantage mais il faut que vous mérité cette responsabilité mooy lan ñu taxaw lu dul dëgg ñu mën ko dindi xale bu nekk ci koñ bi bu defee naka su lu noonu ñu jël ko yóbbu gendarmerie ñu corrigé ko ñaari yoon a ñett damaloo wu ñu tojloo ñu bëtu kenn bu ñu ko defee ñaari yoon a ñett xam ne kii doomu Abdou Guèye la wala kii doomu doomu Ambacke la su ëllëgee wala doomu Matar Diaw la su ëllëgee dootu ko def. bu ko defee parce que bu jëkk lan moo taxoon Amdi Sarr dafay taxaw fi wax wala Pële taxaw fële wax buur lébu ñëpp déglu ko. mais bu ñu paree ñu delluwaat fekkee nañ fi waa daan ni waa Mbaxal kenn du dem kenn du dem marché waa Mbaxal ni waa Walidaan kenn du dem quai de pêche mais lan la woon amul woon dañ c'était c'était vraiment du kii bu ñu defee yooyu bu ñu paree dañu dellu si mel na ñu meloon mais aujourd'hui yàq alalu jaamur wax ak ñoom jibi la président Djibi Diop a dit une chose extrêmement importante stade fu mu nekk am ay riverains y a un problème de cohabitation de temps en temps am na ñu mën a ñu mënul ñàkk mais suñu waxtaanee poser les véritables problème jël suñuy responsabilité foo dem dans le monde actuellement y a que des mais stagiaire bi fan la yem ci biir stade bi la yem mën na juguler à la violence bi nekk ci biir stade bi mais en dehors du stade il est impuissant il est impuissant mais aussi gendarme bi nekk ci kii bi si buy assurer sécurité bi ci biir stade bi la yem mais boo génnee lu ko dalee ci pont pont bi ba bi ngay dem en trois ba bi ngay dem montagne ba bi ngay dem yaraax képp wala nga dem marché sa fu nekk histoire la il faut qu'on arrête ça franchement conseil municipal bi jàppale ñu ba sonn jël ñu xaalis bi dañu ñu tey ay année année mënoon nañu ko def fonctionnement mais on l'a pas fait on a fait combien de fois de report à nouveau pour pouvoir vous donner ce bijou mais un bijou qui est formé ça vaut plus la peine de de, le construire on aurait dû le faire ailleurs mais on a pris nos responsabilités on a dit non nous sommes des sportifs parce que le sport encore c'est pas seulement taper le ballon le sport c'est un Le sport, c'est des ambitions. Et l'ambition est le moteur du progrès, du progrès. Chers amis sportifs, je voudrais que vous ressaisiez ce qui est en train de se passer dans cette commune-là, ce n'est pas normal. yaraax mosul nekk ay violent mosu leen taal ay pneu mosu leen def leneen ak leneen mais su ngeen ñëwee ba léegi dëkk bi lépp yàqu buñ ñu dee wax nawetaan bu jotee ku nekk da ngay tiit parce que dix jours au lendemain say doom mën na dem gendarmerie j'ai vu des nawetaan bi am na li ma gis am naa deux semaines bis bu nekk maa ngi si gendarmerie gendre gendarmerie kii nu mu tuddee mariste yi lan la ay xale yu jël ay mbaarik wala di jël leneen di jabante dóorante leen ay kurpañ xeex leen ay xale ngeen mais koo ñu ñëw àtte leen ngeen dem ñibbi mais jël ay jaasi ñu naan suul nañu ay jaasi fii suul nañu ay arme fii ça les xam ngeen ni lan moo si mujjee je ne le souhaite pas mais si on y prend garde yàlla tere yàlla tere musiba bu ëpp loolu mën na am te boobu lan la ñu nekk frère rek sœur kese kon loolu la maire waxoon ay message la ñu nga xam si ñu mën ko jàllale ma ngi def lu mu man mu ngi xeex lu mu man ñun ñëpp ñu ànd ak moom maire moom kenn mënul dara mais dafa ànd ak ñëpp lii mooy seen bëgg-bëgg yéen ne suñu doom lii mooy seen bëgg-bëgg mais mouvement nawetaan dañuy wax ni bénévolat la volontariat la mais nan la ñuy def pour accompagner mouvement boobu mooy jàppale leen dans le cadre la formation ku ñëw seet si Maguette Faye mu am fu mu la teg ku ñëw seet si Isla Gueye mu waxtaan ak yow am fu mu la teg mais yéen ñu si des ñu Pape Baro pratiquement seen morom la ñëpp ñu Momar moo gën a nekk Benjamin tey si bureau municipal pourquoi on lui a donné ses responsabilités en tant que parce que c'est le président de la zone 7 c'est tout le mouvement sportif qui est honoré à travers la personne de Momar bu leen rusloo Momar quand même méritez Comme le président Ablaye Wade le disait, dis-moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quel peuple tu seras. Aujourd'hui, je vais donner un million de francs aux jeunes à l'amicale des, des, des, des, encadreurs. Pourquoi on donne ça Parce que quand on ne forme pas les gens, on n'aura pas les hommes dont on aura besoin. quand la, la, formation des moniteurs éducatifs, quand les mouvements à foulard sont là, parce que boy nek croix rouge du sen xel nekul nekul ci violence yenen xalé yu nek les mouvements à foulard sen xel nekul ci lolu mais il faut qu'on vous forme soyez sportif le sport c'est pas l'acte physique mais c'est un état d'esprit et cet état d'esprit bi ngeen am bi moo ñu war am lolu bu ñu defee défé fi delu ñaata kañ ñu gëd am ay sportifs yu nek ci au plus haut niveau bareetul et pourtant ñi ñu amoon démb ak bërki démb ñu def fierté fierté Hann Bel-Air wala fierté Yara fan la ñu jóge woon presque tous ils sont issus du mouvement nawetaan Ousmane Thionghane qui est aujourd'hui le président de l'USB il fut capitaine de l'équipe nationale di fay fan la jógee jógewul daan Issa Ba jóge jógewul jàppoo keneen ak keneen fan la ñu mën a jóge Mohamed Adama Sarr ñoom fan la ñu jógee ñoom ñëpp fii la ñu jógee amul benn école bu ñu jóge bu ñu kiiwuloon bu yàgg kon tey loolu war na mën a dellu si mairie bi di accompagner di yóbbu ay xale ba deux fois Fos-sur-Mer ñu jël ñu jël le tournoi international vous avez des génies vous êtes des jeunes jibi li ma leen mën a wax tey vraiment je parle parce que je suis pas content je suis hors de moi parce que je ne peux pas admettre une jeunesse aussi douce que celle de Anne une jeunesse bi nga xam si toujours elle est en l'avant-garde du combat pourquoi vous acceptez d'être victime de la violence Parce que Tamsir a très bien dit, violence n'a jamais réglé les problèmes. N'a jamais réglé les problèmes. Des fois, c'est l'arme même des faibles. Mais demain, il y na des fi amli, amati. Mais l'untardou amati, ça dépendra de notre volonté. Qu'on soit ensemble, que quand les choses veulent déranger wala veulent dégénérer, qu'on prenne nos responsabilités, qu'on situe les responsabilité Mais si je Moussa Diak, c'est mon gerbal, je ne le ko pas, su subaa c'est moi qui est en train de cultiver la violence il faudrait que ngeen toog yéen yéen mais président au nom du conseil municipal nous continuerons à soutenir le mouvement navétane ça nous le ferons nous le ferons mais aussi nous voulons des résultats nous allons exiger des résultats mais résultats yi parce que lu wolof di wax tout le temps mën nga nekk doomu borom xam-xam doomu sëriñ ñu toroxal la mën nga am alal ñu toroxal la mais xale bi am na yar am na teggi ñu toroxal kenn mësu ko gis sur vraiment je vous dis encore une fois au nom du maire affaire bi am na retard parce que année yi yëpp déjà balaa ñu daan commencé sax wala bu ñu commencé jouer benn match ñëwaat tey ñu ngi ci quart de finale yi dañ koy jox parce que équipe bu su nekk xam nañu benn sa benn match presque des fois nga dépenser plus de trois cent mille francs Gibi Diop dégg naa ko benn bis mu wax équipe yo équipe yu nga xam si dañuy dañuy def seen i dépense ba pare ñu leen tey match amul ndax force de l'ordre amul mais encore daañu continuer waxtaan ak les forces de l'ordre daañu kenn tam waxtaan mais force de l'ordre bu ñu am raison suñ ñun mooy ah cam waxoon nañ leen lii bu ñu fubalee lii la ñuy def mën nañu fubal kañ te duñu kii yal nañu yàlla defal jàmm yal nañu yàlla suturaal en tout cas yéen ñëpp maa ngi leen di féliciter di leen jaajëfal di leen wax incha allah suñu njaboot lañu duñu teggi suñu tànk mais il faut que li fi am nag dañ li fi am dañ nañu joxante loxo vous êtes des sportifs Ablaye Balde ses meilleurs amis sont à ñu nga ñu ñu ñu nga wàlli daan les meilleurs amis de Abdou ñu ngi ko ñu neexle tey Abdou Guèye ak kenn du leen fekk ñu histoire jamais de la vie jamais de la vie kon seen tey ay xale yu ndaw wala ñeneen yu kii ay booy yu nga xam si si sport bi aussi booy laaj si stade bi kenn du joxe dara si ay yi du ñu cotiser du ñu dem fenn ñooñu souvent ñooy source de violence parce que président Bële tal na bu sanc des football mu tali wuti xaalis ak leneen lu mu leen di jox président Djibi Diop tal na la même chose dem ba bërkeem ñu tal mais désormais daañu gën a xool gën a vigilant gën a taxaw yal nañu yàlla defal jàmm di leen souhaiter une très belle année bi nga parce que ñu ngi koy presque nawetaan yi ren dafa kii di souhaiter waat di ñaanal yàlla Sénégal yàlla na ko yàlla jàppale parce que aussi itam buy avancé di dem gis ngeen coup d'Afrique bi nu muy indee cohésion sociale mais yéen aussi itam mouvement nawetaan loolu moo ko waral parce que yéen a ngi wax am na ñu ñëw ni tey nañu def benn zone dellu si beneen zone benn zone kese nan la ñuy def mais nous avons nos amis de Dalifort nous avons nos amis qui sont un partout mais lépp li ci war dañ koy def mais incha allah assises yu ñuy organiser dans le courant yi Babacar nga wax ne dañu ko organiser dans le dans le courant de l' année 2023 ça on vous donnera les responsabilités on fera les termes de référence ñëw ñun ñëpp ñu toog ñaari fan wala ñett ñu tëju fii on va se dire certaines vérités mais on va prendre les véritables destinées pour que Hann Bel-Air prenne enfin son envol et que cet envol ne saurait prospérer dans la violence je en tout maintenant un grand merci un grand TV parce que nii la lii mooy dëkk si dëkk bi lii mooy ci dëkk bi la ñu dëkk boo dëkkee si dëkk bi nii ngay am lii ngay taxawee donc Mak TV merci tey fépp fu waa Yaraax nekk ñu ngi xam li xew Yaraax fépp waa waa Yaraax nekk ñu ngi gis li xew Yaraax donc Mak TV gën a góorgóorlu gën a yokk connexion bi parce que vraiment yéen ni ñuy xaar yéen a fi ne.